<laughs> Euh, tey moom euh, dama indi benn cam de rue laa indi quoi parce que sama binom moom xam nga day wax ci transport. damay mm-hmm. sawar trop ci indil ko ay contenu yoo xamante si nii aussi tamit transport la quoi ça parle de transport mais jusque bii nii seen euh, est un taximan benn taximan lañ. toujours les taximan. toujours les taximan yooyu nañ ca bës. <laughs> ndax xam ngeen taximan yi dañuy dañuy gànnaayoo ay mbolde ak ñoom seen. si des fois da ngay dox di sax ñu. taj la ne la yow bu ma la jàppee. ni ngay <laughs> ameel ngeen ñu ak affaire yi nga xam juste pour rire quoi juste pour wax la ni Mahfouz dafay ñëw euh, comme quoi que ni moom déggul euh, olof quoi anglais la na beneen euh, koo xam des ni mooy interprété day ñëw ni ko day dem fii rek Ngor pour sangu ji ay affaire quoi ci xàmb yeeg yooyu mais man su ma ñëwee moom taximaan loolu lay yaakaar da ko yóbbu pour mu sangu ji mais man su ma ñëwee dama naan ko ay jinne lay lay lay yàpp ci taxi bi quoi au fait léegi taximaan moom dina nangoo yóbbu jinne yi wala du yóbbu jinne yi ñu xool ba xam taximaan bi nan lay réagir bu baaxee Grégoire ñu balancer xool lu ñuy seen seen seen euh, suñ côté bi res doole bi mhm. am na benn maamam boo xamante ne moom léegi la ko dafay foofu ay tuuri jinne foofu la bëgg ku ma yóbbu ko foofu moom mu sangu ba pare mhm. ah ma xaar ko mu sa tuuri mu sangu mu retourné waat xaar ko tuuri moom mu sangu ba pare waaw moom mu retourné mu yóbbu si yeneen couche yi mhm. ay refesque ba waaw genre yooyu noonu ay bañeeg yooyu noonu mais n'est-ce pas yéen heure ñaar temps ñaara temps lay yéene ah, so so cinquante mille yu xaar ak ay tuyaux mais cinquante mille ba jëm fii ba gannaaw suba mënul nekk one two hours two hours nee na ñaari kii lay dem wakaam ak Rufisque. yéegal amul problème. so let me introduce the gene. please help me to introduce the gene. mais maanaam. the gene gene. let let me wait. help me to introduce the gene. one for the pa. how number gene what do you want to introduce in the taxi. what. how number gene what do you want to introduce in the taxi. five. five gene. five. cinq Guinée lay dugal ci biir taxi. may Guinée. ah Moussa man maa yëg Guinée la. non wait wait wait wait. mënumaa yëg Guinée doom day. wait wait wait wait wait. mënumaa yëg Guinée. wait wait one. one for the par. two loo yëgali jëndee nga yëgali. two for the par. <laughs> six three three. three wait wait wait wait. saa yi mënu mënu maa yëg jën dégg nga wala xanaa waxaale woon du ñu yëg. ma waxaale man du mais waxaale de. dafa ne ma day def ci tuur yi la wax. waaw taxawal waxaale a wala waxaale woon. a Niambane ha. saa ñi yëguñu wala mënuñu yëg. waaw wuy ma waaw laa dëkk mën ñu yëg. la man duttu laa dëkk. wuy ma waaw déglu ma la walaay mën ñu yëg. man déglu ma dama lay wax. mais yow waxoo waxoo. waxaale woo ñama ñi aha. mais waxaale ngeen wala waxaale. yaa yaa non dafa ne ma. waaw yaa da gannaaw da ngay déglu rek da ngay. yaa yaa silence silence shut up shut up. looy seet gaaw. waaw yow sa waay te jinne mën nañu ci mën dara. yow boo non non non déglu ma rek. non non non. yaa yaa say gaaw ba pare di am. waaw yow man orthographe boo raay man man waay ba ay jinne man waay ba ay. ok. Zé, de negra. waaw bi ngi loolu gis nga jinne yi kajaa ñoo ko seeraanandoo waaye yow bàcc bu doon yow la da nga koy yóbbu wala doo man kay waaji moom dama ne bi dafay yàgg parce que moom nataal dem rek non max moo toog ci kanamu oto max daa war a <laughs> moo toog mënu koo yóbbu mais dafa mel ni ñuy dawal nag li ñuy rencontré gens yi cas yooyu papa bari na de wala. waaw <laughs> da ngeen si am ay bës de. waaw loolu dëgg la <laughs> ñoo xam ne dañoo doy waar si tali bi. loolu daal. et eh, daal ma de waaye sama benn xarit moom daal na ko. lu ko daal. nee dafa ñëw ba fii nu mu su dooti pompier. Mm-hmm. yàgg la ma wax nag yàgg na nag. nee na bu ñëwee pompier seen ndaw arrêté mu départ bàyyi fa ndaw si bu ñëwee ba Padois ndaw si arrêté waat ko foofu te nee na gisul benn oto ba ko romb. Mm-hmm. même personne bi <laughs> arrêté ko. nee waaw beneen di comme ndaw si ndaw si ko doon arrêté fa de moo ko arrêté waat. nee na mu xam ne lii moom du nit moom. du nit waaw. <laughs> te nee oto romb ko mu de boobu temps oto yi bari